lii bu munee am wax dëgg yàlla du kenn ku dul président de la république Macky Sall président de la république wax dëgg yàlla ñu ngi koy gërëm di ko jaarale ci ki nga xam ne mooy membre du gouvernement te yor département de santé Abdoulaye Diouf Sarr nekk na encore on ami ñu bokk lépp mais en même temps camarade de maire que nous sommes mu taxaw fii kon ñu ngi koy gërëm ci li nga xam ne mu ngi koy def ci ndigalu président de la république mais di gërëm encore ngërëm boo xam ne euh, Malick Gaye moo xam ne na moo jiitee direction générale bu AGETIP ci taxawaay bi nga xam ne def na ko suivi bi ak lépp ndax centre bi ñu koy tàmbali ak léegi boo xoolee nga xam ne ne dafa avancé sax ci délai yi mu waroon jeex mais loolu lépp nag kenn warlu ginnaaw yàlla ak yonent bi ak léegi bi nga xam ne moom lañ jënk département AGETIP mu suivre ko ah nekk ci wetu euh, euh, entrepreneur bi di fi ñëw di fi ñëw guddi ak bëccëg dafay teew yenn saa yi sax te fekk nuñ duñ ko yëg pour xool naka la demee mais monsieur le ministre na la leer na ñun biñ la gisee nga ñëw fii suñu xel dal na amatuñu lu ñuy taxaw di ko défendre. dooy nga ñu avocat ci lépp nag ndax xam nañu homme politique nga te ñun ci loolu la ñuy nekk xam nañu ku jege suñu base nga ci niñ ko xamee ak niñ la xamee xam nañu ku liggéeyal président de la république nga xam nañu aussi koo xam ne ne askan bi ak soxla population yi loo jéeg di nga ci taxaw moo tax ñun suñu combat xam nga lan la woon. jafandu xëcc ba nga teew fi rek ni nga fi teewee tey waroon nga fi teew population yëpp xaaroon la arrondissement bi ba ñu organise suñuy añ ak lépp yàlla dogal boobu nga am loo xam ne ne kenn ci tey nijaay wàññeeku wàcc liggéey boobu aussi ñu ngi la koy jaalee te loolu na la leer ne defoon nañ fi ay kaamil di la ko yónnee ndax rek li nga waroon fi teew ñu xam ne ne ngantu boobu moo la jàppoon moo waral te incha allah maa ngi rassurer arrondissement des añam qui quatre communes commune de Oréfondé bokk fi commune des Agnam nekk fi ñu taxaw commune de Thilogne bokk fi commune de Dabié bokk fi ak région bi yëpp fi nekk chef lieu d' arrondissement donc ñu lay xamal ne incha allahu rabbi ñu ngi lay xaan ci fan yi néew équipement yi ñëw ñu jàpp date d'inauguration nga ñëw jiite taxaw fii accueillir ñu président de la république mu nekk yoon boo xam ne ne dina nekk ñun ñëpp suñu histoire président de la moo ko defar directeur général ah, Malick Gueye moo ko tabax ministre de la santé et de l' action sociale Abdoulaye Diouf Sarr maire de yof moo ko piloté ba lii lépp mën a am ak ñun ñi nga xam ne ne ay ndaw la ñu ci président de la république nekk maire de cette commune ñu ngi koy gërëm di la gërëm di gërëm ah, ah, chef de service yëpp. nguur bu ñëwee taxaw dugal ci loxam kenn existé tul kenn defu ci dara lépp Macky la président de la république Macky Sall moo jël lépp joxe ay ndigal. ñu jël les moyens qu'il def ko à la disposition direction générale de l'AGETIP pour centre bi pare dans les meilleurs délais kon nag waa Fouta yëpp yàgg naa leen di wax hôpital bi nee nañu arrondissement la mais arrondissement bi kese moomu ko région bi mes kese moomu ko mën nga fi jógee podoor ou nga jógee Bakel di jaar fii di dem sa soxla bu fekkee ne tawat nga tuuti da ngay dugg ci centre bi faju nga xam ne nag ñun ñëpp ko bokk ñu nekk frontalier avec la Mauritanie mu nekk pays encore voisin boo xam ne ne euh, relation yi xam nga ne diplomatie bi dox na loolu lépp nag centre bi arrondissement bi ko bokk département bi ko bokk région bi ñoo ko bokk Sénégal yëpp ñoo ko bokk